boo duggee sa bàmmeel balaa ngay dem fenn danañ la mooy ñi yàq alalu jàmbur ak jël alalu jàmbur gis nga boutique boo daj ji dërëm boo ci jël te moomuloo ko boo duggee sa bàmmeel dërëm boobu dinañ la laaj lan moo tax nga jël kooku du wàllu crise walla wàllu politique walla wàllu leneen kooku islaam ko njëkk at alalu jàmbur boo moomul dërëm boo ca laal donte boutique ba ñëw na toj nañu boutique ba nit ñaa ngay jël meew yàgg nit ñaa ngay jël café yàgg boo ca laalee benn dërëm boo moom la boo duggee sa bàmmeel balaa ngay dem fenn danañ la laaj dërëmu jàmbur ba nga jël ci lan nga ko teg moo tax kooku bu la ci crise yóbbaale mukk kooku bu la ci crise boo moom parce que waxuma ku ca jël dix mille francs walla ku ca jël leneen dama ne ku ca jël dërëm ci alalu jàmbur boo moomu boo duggee sa bàmmeel danañ la ko laaj te boobu doo am ku la lay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alalu jullit dafa sacré waaw nee na alalu jullit dafa sacré nee na alalu jullit kenn du ko laal te amoo ci autorisation waaw mooy ñi yàq